Je ngi Mustapha Moustapha Nam joueur AS Douane ancien joueur Dakar Sacré-Cœur Avenir Dakar milieu terrain huit buts championnat Je suis très content parce que Boudoul dakar dara représenter ce pays l'oreille. rëy affaire bi naturellement parce que déjà bi may joué ce championnat bi un objectif ay objectifs pour sélection locale ou wala U23 bi euh, comme que demeewul noonu bokk xamna fi fii la ko yàlla tuddee woon euh, ma am contact ak euh, suñu coach Cheikh Sidi Ba ak Mansour Ayanda par la suite Mohamed xamal ma daf ma sélectionné ci équipe nationale mini foot bi voilà euh, ma jël ko ak contenté bu rëy nak waaw pour bok ci championnat du monde bi waaw waajal ko ci côté yépp nak waaw parce que defe naa boo jugee ci ci ci dëkk demaat ci dëkk defe naa li la fi indi du euh dama part personnellement man euh, dara du ma parce que championnat bi jehna mais man de nee joueur bi am vacances pour man dama don entraîner sérieusement même suma ma compétirul des fois ma def deux séances des fois ma def ben séance non pas les coups wa motax biñ ma sélectionné ni aw ma dara lu ma bett tiitu ma ragalu ma waaw buñ ma néwon tay tay tay damay ñëw jouer ci damay ñëw daf may yokk jom ak motivation parce que coach bi xamal na ma ni carrément dafa compter ci man wa te defe naa loolu nag samay qualité moo ma ko may donc li ma def ba fii moom yaakaaruma ni n'a dinaa ko bàyyi waaw euh, yaakaar bi ñu am ci man nag du du ma nangu mu mu wàcc benn yoon dafay jëm ci kanam rek incha parce que xam ni groupe bi aussi dañu compter ci man waaw te du ma leen décevoir waaw sénégalais yëpp nag waaw maa ngi di lancer un appel xam ni euh, championnat bi euh, siiwul noonu ñëpp xamuñu ko mais xam suñu notre premier match demain Yalla may ñu si ndam ñu jouer waat suñu deuxième match gagné ba qualifié Xamna ni ak média yi diko téléviser ak partout dans le monde Xamna ñom ñep dinañ dinañ ci bàyyi xel quoi waaw mëna na nak man dina def tout mon possible pour incha le 16 bu ñu ñibi ci Sénégal ñu indaale ndam.